danaa daqaar seen nday yéen ñëpp benn par benn sàcc yi nekk yi ministre directeur ku mel ne ba jaay suuf si di lekk danaa xarfal seen bay maa ñëpp ndeyam mais yaa xam xam nga depuis quelque mois dëgg la mais dangaa yàq sama der fenal ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi la nag ba mu jot ndax yow bi may wax ci affaire gerte gi ba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass Cheikh Seck ay meeru jabaram ka jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko may sa Sele Ndiaye jox nañ ko 70 tonnes jox Sele ma nekk fële di tonnes yow joxuñu la wax naa la ko nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàpp sa ndey te doo ci man dara damay daqaar sa ndey demal ci procureur sa datam ndey pour ma bàyyi la da nga dem weddi li nga waxoon ci rajo télévision bi yaag Farba. mbaa da nga ñëw sukk sama kanam tuub xam ne du ma sa moroomam baay du ma sa moroom maam sa asken wépp sama daal la leen gën ndax damay werd di jaamu yàlla te du ma naan sangara du ma moy te du ma fen te ragalu ma Macky Sall mënumaa ébranlé Marème fay mënumaa ébranlé dama àndoon ak ñoom ci ngor léegi xeex bi déclenché na dañu xool ba xam fan lay mujj ndax yéen du ngeen gor li ma liggéey CEDEAO ngeen dem di ma dóoral ak di kat seen ndey di wax lu ngeen xamul dara CEDEAO ku fa taxaw ni ma dollar jël naa ko fa ma xotti sa bajom ndey man man Afrique gi maa ci gën a clean waaw Macky Sall maa ko gën a clean ay ministre maa ko gën a clean Macky Sall mi ngi traîner des casseroles mook ñi mu àndal boo ma tuddee ma xotti sa datam ndey xadeet sexal la ko ci mbedd mi sa lëfal ndey ak farba Abonnez-vous à la scène qui vous ressemble et qui vous correspond. Nyankyo Media Vision, ah, l'œil du delta du salon.